mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziyaar bu baax mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar di leen ndokkeel di leen jaajëfal bu baax a baax a baax ci ànd bii nga xam ne moom ngeen sax dàkk di ko ànd ak ñun ci seen télévision As-Samadiyya TV di ndokkeel bu baax a lu Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bachir di ko ñaanal sunu boroom yàggal ko fi lool may ko fa fan gudd ak wér ba yéene yi nga xam ne am na ko ci liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul mu yegale ko am ci ay ndam yu kawe te ñu ànd ko ak moom. ñaanal ko njabootuk Serigne Touba Khadim Rasoul gi yëpp ñaanal ko taalibe Serigne Touba yi ak sunu mbokki jullit yëpp mbokk yi ba tey ñoo ngi ci biir programme spécial bi nga xam ne. moom la leen As-Samadiyya TV jagleel ci ubbite eh, complexe Cheikh Ahmadul Khadim muy daara ju mag yi nga xam ne moom la Cheikh Mountakha Mbacké di liggéeyal borom Touba ci dëkkam bu tedd bi di Touba liggéey boobu nag moo waral bu baax léegi ñuy tànn ay jëm yoo xam ne jàpp nañu ne danañu mën a waxtaan ak ñoom ci xeetu xam-xam yi nga xam ne moom lañ fa fas yéenee jàngale waaye itam Eh, bëgg-bëggu sëriñ bi nga xam ne moom la Cheikh Mountakha Mbacké di dàkk ngir liggéeyal ko sëriñ bi ci biir eh, dëkk bi eh, sunu jëwrin nag Cheikh bu samat moom sëriñ Chouaïbou nga xam ne lii lan la ci ay jumtukaayam yi nga xam ne moom la dàkk rek di ko liggéeyal sëriñ bi mu indi ko waaye itam di taamu bu baax a baax a baax nag lépp rek jëm ci li nga xam ne moom liggéeyub sëriñ bi waral tey kon ñu agsi fii ci imaam Serigne Abibou Diop moom Serigne Touba Cheikh Salih Mbacké ñun ñëpp ñu xam ko bu baax ci liggéey boo xam ne liggéeyal na bu bi waaye itam ñëpp ñu koy dégg rawatina ci wàllu weer wi nga xam ne saa su ne ñi koy saytu ci la bokk daanaka yëgle gi itam ci moom lay bàyyi ko ci ndigalul Serigne bi. imaam ñu ngi ko fekk fii ci wax waa ci jumaa ji nga xam ne Cheikh Salih moo ko defaral sunu borom ci pàkk bu tedd bi ñu ngi lay nuyu di la ziar imaam Abibou Diop moom Serigne Salih di la ndokkeel. di la jaajëfal ci ànd bi nga xam ne yaa ngi koy ànd ak ñun ci bànqaas bii di As-Samadiyya TV ñu bàyyi la nga nuyoo. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, mbokk yi ngi leen di nuyu. te di leen ziare. di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fi nekk Serigne Touba. di ko ñaanal sunu borom may ko fan wu gudd gudd gudd gudd ak wér. ba mu eggalee naa li Serigne Touba yëpp ci barkeb Serigne Touba di nuyu Serigne Samad ak ñi nga xam ne ñoom la bokk liggéey bi euh, ci ci ci ci ci Asamadiya ak borom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk ci Asamadiya yëpp di ci déglu waxtu nekk ay xam-xam yu am solo. daanaka ma des naa ne ab am ab université la. ndax bi bu set ay xam-xam di ci balla yoo xam ne yu kaw yoo xam ni. bari na ci yoo xam ne boo ko bëggoon xam da nga da nga sonn lool. waaye bis bu set nga ma dégg ci xam-xam yoo xam ni yu kawe lay doon yoo xam ni yu am solo yuñ mën a jëriñoo te loolu lépp moom la noo ngi koy ñaanal sunu borom may ko fan wu dëgg wér te eggale eggale yéeneem ci yoon wi eggale yéeneem ci dëkk bi eggale yéeneem ci lislaam barke sëñ Tuubaa di eh, siyaare ñëpp nag di bala wax ñëpp di bala wax ñëpp di siyaare jëmm ji nga xam ne mooy Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké moom Serigne jëw di jëwriñu barab bii hmm. moom it ne di ko waral yoom ak ñaan di ñaan sunu borom may ko fan wu gudd ak wér ak àggalee naa li waajuram ya mm. ci kattan ak borom bi barke sëñ Tuubaa mm. jërëjëf imaam xam naa laaj yu njëkk yi mën naa jëm rek xam nga sëriñ Muntaxa dafa mel ne dafa ñëw di jéem di firi e, joxoñub sëriñ bi ndax loolu rek mooy jubluwaayam mm. li sëriñ bi bëgg jubluwaayu sëriñ bi ci lay xëy ci lay gont daara ji nag dafa bokk ci yitte yooyu nga xam ne moom la njëkk dox mm. ngir defal ko sëriñ bi mm. ci ci ci dëkk bi soo ko doon taawil mm. tey noo ko doon taawilee bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah xanaa di sant yàlla njëkk sant yàlla bu baax ci fekkeloo gi mu nu fekkeloo eggale gi ñuy eggale naalu Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne da koo naaloon sant sunu borom maye noonu nu fekkee ko ñoo ngi ci ñoo ko ci sant bu baax a baax di sant la it sëñ Mountakha yàlla di ko sant la Serigne Touba moom mi mu féetale liggéey bi ndax euh, sëriñ tubaa ab liggéeyam lépp sunu borom da koo nangu ba noppi dafa sotti ba noppi lépp lu mu bëgg sunu borom def na ko ba noppi xanaa rek leen lu ci nekk dafa am waxtu ak kum koy def loo comme ni ko bëggeen ak kilifa misaale woon ne liggéeyu sëriñ bi daa mel ne sor woowu nga xam dañ koo ràbb ba mu egg ñu taxañ ko. di ko tàllal partout luñ luñ tolloo rek ñu tàllal loola. noonu ma ko misaale woon noonu noonu rek la liggéey bi Sëñ Tuubaa lépp dafa sotti ba noppi. lépp loo xamante ne li bëgg na ko. wala mu niseer ko wala mu bind ko. sunu boroom da ko koo may ci ba mu ci liggéey bi ndax ba nee jihaadi yanqada wa rabbi qabila wa huwa ka saa'i kulli haadin arsala eh, sama jihaad jeex na yàlla nangul na ma ko. te defal na ma ko mu mel ne jëfi ku mu mës a boobe la léppam sotti daal di wax ne may na ma nag lépp loo xam ne sàkk woon naa ko may na ma ko ci bis may na ko ci ci liggéey bii waaw lam nag bokk na ci lam bokkoon bind ko bokk na ci daara ju daara ju mel nii ndax ci Nigeeram la bokkoon ak jumaa ji jumaa ji sotti na daara ji ci lañu toll moom la Cheikh Mouhamadoul Moustapha di Muntaxa di sottal di sottal nii da ko bindoon wax ni bil Moustapha lii bana al quddus madrasatan biha yazulu al aza wal jahlu wal kabadu ci barke bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sama borom tabaxal na ma daara joo xam ni ca la ak réer di dañe ca lor di dañe ci la coono di dañe ci dëkk bi loolu jëmmi daara ji rek wane na wane wane na wane wane na dañu coono ndax boo duggee ci biir daara ji ñun la fii ay dongo fii bëgg a jànge dana la wóor ni ñii ñoom bu insha allahu taala dara coono duñ ko am ndax saal ya na mu mel lal ya na mu mel ba ay climatiseur am lépp ñu teg fa ñu di toggal teg fa ñu leen di toppatoo bi yaa yazulul aza wal jahlu wal kabadu loolu loolu daal na daal na koy firi ci saa si kon eh, Cheikh Mountakha noo ngi koy santale yàlla ci may gi ko sunu borom may mu war koo liggéey liggéey bi yàlla na ci dolli yeneen ak yeneen ak yeneen bu bii sottee yàlla na ci dolli yeneen ak yeneen ak yeneen yu mu ko liggéeyloo ndax sëriñ bi moom ni ma la wax rek ay liggéeyam yëpp dafa sotti benn bu ne nag daa am waxtu am comme koy defloo saa su waxtu woo jotee nga daal gis kam koy def la daal di ciy jublu lii nag waxtoom eh, eh, sëñ Abdou Lahad naaloon na ko ba simb ko simb bëri bi yàlla na ko yàlla fayal moo simb simb bëri bëri loon moom a tey sëriñ bi di ko liggéey dana sori lool ndax lu yaatoo nii di su ko mën a amati ci biir dëkk bi kon dana génn fu sori waaye simbum sëñ Abdou Lahad ak yéeneem ak pas-pasam Euh, ak xolam bu rëy moo tax mu simbulu toll nii yàlla nañu ko yàlla fayal. même bi même su ginnaawam it sëriñ Saliou Mbacké ridwanullahi alayhi sa def na ca euh, di ba ba ñu tàmbale woon ko ubbi ba am am amoon majalis amoon nangam ak nangam waaye yooyu yëpp booba ka koy eggal borom liggéey bi dëgg dëgg dëgg ñëwagul. Mm-hmm. boroom liggéey bi dëgg dëgg nag bi mu ñëwee. Mm-hmm. daal dinañu koy gis. Mm-hmm. woote na woote boo xam ni eh, sax sonn ci. ndax li mu dajal li li daje ci liggéey bi ci milliard. bu fekkoonte ni coow noo koy génnee. kon dana metti lool. waaye ñëw leen nu eggale liggéey bu Sëriñ Tuubaa bi la wax. ñëpp réer wut si ko murid yëpp nangul ko. lépp dana sottee incha allahu taala yàlla na sottee lépp ci loxoom. ba mu jé ba mu joxe caab yi ba tàmbali. ba ñu ba ñu liggéey yëpp. faculté yëpp egg daaray alxuraan yi yegg lépp egg ba ñëpp di ko jàng ba mu tàmbalee gis ba mu gis résultat yi hmm. yàlla na ko yàlla na ko yàlla defal nañ ci barkab sëñ Tuubaa ak yeneen si leen sémbu yeneen yu doon yu ne kon nag noo ngi ko noo ngi koy ñaanal yàlla may ko fan wu gudd ak wér ci kattanu borom bi barkab sëñ Tuubaa waaye daal miseeru sëñ Tuubaa bu mu defoon moom lay eggale nii moom lay sottal nii te sëriñ bee ko tànn ngir sottalal ko ko yàlla na yàlla ko ko nangul loo gis na ci ay ci ay njariñ ñun taalibe ak jullit ñi mën nañ koo mànge ci ci daara jooju waaw daara jooju liñ ci mën a mànge ci yiw dafa bari ndax sëriñ Tuubaa dafa ne woon sama gimiñ mooy ñàkk dëkk tubaa di jàngale alxuraan nga xam ni taal taalub alxuraan ci Touba mooy li nga xam ne mooy bëgg-bëggam nekkal fi boppam di ko jàngaleel boppam. Hmm. loolu mooy lu li doon bëgg bëgga nee na gimiñam mooy loolu. Hmm. kon nag bu fekkente ne Niger na ko Cheikh Mamadou Mountakha ñëw sottalal ko ko. Hmm. simbu daaray alxuraan ju toll nii. woote kenn ku nekk indi sa doom dugal ci te dara du la ca war. ak njàng ni mu seere ku ne xam na njàng ni mu seere jamono yi ñu toll ku ne xam na ko boo bëggoon a sa doom tey fii ne rek internat yi képp da ngay fay trente mille trente cinq mille waaw te te te te ku ku mel ne man nga xam ni saa su xëyee day daw dépasse. Mm. kooku mënta fayal doomam. te loolu mooy li gën a tuuti. Mm. ndax bu bu génnee ci alxuraan ji képp ba war a dugg ci yeneen jàng ba war a dund ci yeneen jàng. Mm. bay dem ci université kii yëf loolu ay financement yu bare bare bare la nga xam ni topp ci kenn moom sotti képp daanaka ñu ëpp ci nit ñi mënuñu ko. kon nag bu fekkee ñëw na defal na ko woote te muy liggéey bu sell boo xam ni moo gën a sell mboolem daara yi ma mas a teg bët. te kenn ku ko indi sa doom ku ne kenn dara warul la ca. kon loolu dafa mel ne li ci nekk ci njariñ bari na la ca des mooy nu wëlbatiku nag maasa ci jàppale ko ci. bañ ko koo bàyyee loolu rek moo ca des ndax ndax ndax moom lim mën lépp def na ko te liggéey bi sotti na liggéey bi bu sottee nag noonu ñëpp kenn ku nekk la nga defoon nga nga fas ne at mu jot nga defaat ko. ndax lu seer kat ndax lii liggéey la liggéey ay bâtiment rek la. waaye saytu gi nag ku ne xam na ni ab université saytu ko moo gën a seer liggéey ko. Mm-hmm. ku ne xam na ni hôpital liggéey ko maanaam liggéey ko saytu ko moo ko gën a seer mm-hmm. kon bu liggéeyee université université bu toll nii milliards yu toll nii dem ji mu wóor ni milliards yu ëpp yi moo koy saytu mm-hmm. kon nag bu kenn defee ne wàcc nga kenn ku nekk jàppal ni yaa ngi soog a takk yaa ngi soog a tàmbaliwaat liggéey ñun ñëpp na maase takku suñu laxasaayu at mu jot kenn ku nekk loo ca defoon nga nga ko yéen yi ful defaat ko ci nu ànd saytu gi ànd saytu bi di ko ci jàppale loolu mooy tax mu sotti waaye buñ ko bâtiment yi rek moo egg dugal na leen ci biir lépp it tàmbali nañ ko financement yi yëpp tàmbali nañ ko tàmbali nañ togg yi tàmbali nañ indi nañ jàngalekat yi tàmbali nañ lépp néegu ci kenn néegu ci kenn moom day da da day tàmbali liggéey bi lu mu am def ci bu ko defee nag noonu ñëpp nu war a maase takk suñu digg fekk ko ci te bañ a jàpp ni liggéey bi egg na loolu daal mooy li nga xam ni mooy li ci mën a ji ci njëriñ nag mm. macha allah ndax université bu toll nii moo mm. leen xeeti faculté yëpp dafay am maanaam xam-xam bu ñuy jàng insha allahu taala dana am ci université bi danañ ko fi am. te bu ubbee dana xam loolu. kon nag kooku te kenn du ci sonn kenn du ci sonn. kenn du ci sonn bu ñu demee ba war a joxe dara it. xam naa ni eggaguñ ca te bu demee ba di ci egg dana néew du bari dana néew. kon nag loolu nag kon loolu njëriñ la loo xam ni. wax dëgg yàlla ñun ñi nga xam ni tàmbali nañ caa dugal suñuy doom. tàmbali na noo xam loolu. ndax sun doom yaa ngi ci école daara yi jàng sun doom yaa ngi ci école yi jàng xam nañ lan cay daj ca daara ya ak ca école ya hmm. kon nag bu ñu ubbilee école bu ëpp mel nii hmm. te benn école melu nii yii hmm. amu ci kenn koo xam ne sa doom lii waralul nañ la ca dara lépp moom mu ubbi na école mu mel nii waralul nu lépp kooku kat dañ koy ñaanal sunu borom doon lu ko fee bàyyi. nu may ko may ko wér. te te te te li mu bëgg lépp moo am ko ci liggéey bi barkab Sëñ Tuubaa. macha allah euh, xëy na kon ban xeetu étudiant. lañu yaakaar ne moo war a bàyyi koo ci daara ji par rapport ak étudiant yi ñuy miin a am xam ci euh, réew yi. waaw étudiant bi foore bàyyi koo nag. Mm. mooy yu mel ne yi Sëñ Tuubaa doon defar. Mm. ndax yu Sëñ Tuubaa si xam loolu mooy liggéeyam. Mm. maanaam du rek jàng xam-xam rek génn. de ndax xam-xamu kese. amalul njëriñ nit ki nit ki lu mu am am xam-xam bu defar wut du defar dara la muy yàq mooy ëpp la mu defar boo ko xoolee rek tey xool ko ci jamono ji àdduna ji àdduna bi ni muy doxi fi mu ne ni yàqu-yàqu yu baree te yàqu-yàqu yëpp borom xam yi doog nga ko jiite réew moo fi dem ay borom xam-xam ko jiite yàqu-yàqu yi fa am yëpp borom xam yi ñoo koy def loolu mooy borom xam-xam bu ñu defarut waaye su génnee borom xam-xam yu mel ne sëñ Daam Abdourahmane su génnee borom xam-xam yu mel ne Cheikh Mandoumbe su génnee borom xam-xam yu mel ne Cheikh Ibra génne borom xam-xam yu mel ne sëñ sëñ sëñ Masamba Diop Sam borom xam yu mel noonu lañ bëgg école bi génn ko moom la sëñ Muntaxa bëgg ñooñu nag hmm. ñu defarul la ñuy doon ñoo xam ne dañuy defar di defare kenn ku nekk ci ñoom fa mu taal boo fa demee da nga fa fekk nii ñu defar ñoo xam ne teguñ ko sax bët teguñ sax ko ka taal ba bët waaye boo leen làmbee da nga fekk ñu defare ci gépp wàll da nga fekk ñu defare ci xam-xam defare ci yar defare ci nangoo liggéey def te duñu yàq defare ci lépp lu mu doon ñu defaru ci xam borom xam yu mel noonu nag lañ bëgg mu génn ci école bii waaye du ay rek borom xam-xam ki jàng rek jàng rek ndax njàngum kese bu àndul ak ki teggin day yàq nit waaye du ko defar Sëñ Tuubaa nee na njàng mu amul ki ñu ànd mu àndul ak ki teggin mu àndul ak ay teggin mooy ab defaru loolu nee na moom moom day yàqal borom waaye du ko defar. te looloo sababoon sëñ bi bi mu ñëwee daara ja mu dindi ko defaraat ko ba mu ñëwee da fekk fi daara fekk na fi daara. ñuy jàng mboolem xeetu xam-xam yëpp ñu di ko fa jàng. ba mu yilifee daara ja dañu ku fi jàng rek andi woon demal. wuti foo jàngee waaw koo xam ne nag bëgg nga li ma bëgg um, toogal. ñoom xamuñu la mu wax ñi ci gën a bari dem. ña nangoo toog toog mu daal di ubbiwaat daara ci. daal di ci complété nag ya nga xam ne moom la soxla. moo génne boroom xam-xam yi nga gis yi ma yi ma lim ak yu mel ne ñoom mm. ku mel ne suñ Mbàkke Busso mm. nga xam ne tey jii ci tey ba fii nu toll mm. ku ko raw xamuñu ko te ay ay jamono wees na bu yàgg waaye ba fii nu toll téere yi mu fi téere yi mu fi téere téere yi mu fi bàyyi mm-hmm. taalif yi mu fi bàyyi borom xam-xam yi dañ ciy sukkandiku di jàlla ji moom ab boroom xam-xam yu mel noonu sëñ Ndaam Abdourahman mm-hmm. nga xam ni ku fi jàng moo la jàngal mm-hmm. sëñ ma dem sëñ Lamine Diop Dagana sëñ Amsatou Diakhaté ñu mel ne ñoom ak ñi seeni mag ñi leen kaw ñoom ñëpp kenn ku nekk bàyyi nga fi ci xam-xam loo xam ni bàyyi nga fi ciy loo xam ni bàyyi nga fi taali jàng yoo xam ni ñu fay génn ñëpp dañuy defaru ñooñu nag la Cheikh Mountakha bëgg ci daara ji moom la moo tax mu di ko ta moo tax mu di ko taalaat ni seenu nag nit nag moom la ciy am ndax ñi nga xam ne ñoom la ko teg ci seeni loxo ma sëñ Ahmadul Badawi ak ñi nga xam ne ñoom la ko àndal ñooñu ñoom Eh, maanaam maanaam maanaam maanaam desiiti mag ña la ñu mm-hmm. ay borom xam-xam yu defaru la ko teg ci seen loxo yu baax yu sell yu mel ni seen maam yi ak seen bàyyi xam ne mel nañu ne cib xam-xam ci mbaax ci defaru ci biyar mu teg ko ci seen loxo mm-hmm. ñoom ñoo xam li nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg wax leen li mu bëgg ñu daal du koy teg ci yoon woowu yoon woowu mooy yu ñuy teg daara ji incha allahu taala képp ku fi génn kuy jëriñ réew mi ëllëg la waaye du doon ku koy lor incha allah jërëjëf imaam xam naa <laughs> foofu yow dañu lay bàyyi rek ndax ñoo ngi war a seq waxtaan wi ak sëriñ uh, Axma sëriñ Ahmadou Guèye sëriñ Ahmadou Guèye moom sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke itam ndax ku ne xam na ne def na génie civil hmm. uh, kon ci wàllu technicité ni nu liggéeyee mbir bi am na ci ay xalaat danañ ci ànd ak moom incha allah waaye ni nga ko waxee rek hmm. kon mën noo jàpp ne njort ne te am yaakaar ne hmm. daara ju mag gi sëriñ Touba taxawaloon daara ju ni toll. a Cheikh Mouhamadul Mountakha. naal na ko ci dëkku sëñ Touba bii di bii bii kon. am nañ ci yaakaar. tubaarkàlla jërëjëf Mbaye jërëjëf jërëjëf kon nañ ànd ak euh, sëriñ Ahmadou Guèye. sëñ Ahma. waaw euh, dégg nga ni imaam indee euh, wàllu jubluk sëriñ beeg bëgg gi. Hmm. waaye yow sa bët tege na ci université bi. Hmm. gis nga liggéey bi. Hmm. ci wàllu technicité. bâtiment xëy na am nga xalaat boo xam ne. gis nga ko ci. waaw bi nga ko gisee ni ñu ko liggéeyee ci sa xam-xam lan la la bâtiment yi may. waaw jërëjëf maa ngi sant yàlla bu baax fekk waxtaan bi ak seen imam damay tàmbali rek di ñaanal seen mu tax yaa na fi yàgg wér euh, si si ay wax yëpp man da sëkk sëkk sëkk. Hmm. bu fekkoon tey yéen def taarix bi hmm. wax de lépp hmm. kon nag euh, ñoo koy ñaan bu baax a baax man nag ingénieur génie civil la dama retraité waaye li nga xam ne ñëpp gis nañ ko bâtiment du caaxaan. ndax ba tàmbale fondation yi. ba bëgg a jóg ci kaw. yëpp études yoo xam ni études yu dëgër la. ñu ne li ñu gis. di ko xam di ko ci télévision bi. sëñ bi wut na ingénieur yëpp. ingénieur yi xay xay yu xar na ci affaire wu sol béton bi yëpp man na. kon mën na mën na jàpp ni bu fekkoon te état la tey. bu dee état ko defa tey état du am benn problème bu muy xalaat. kon sëriñ bi la ma xalaatoon dëgg am am garantie bi. am euh, lu dëgër. te rafet mu ngi jamono am na ko moom. te loolu ay ingénieurs yu bari la wut du benn ñaar ñett ingénieur yu bari la. ñoo topp liggéey bi. Euh, ñi nga xam ne ay commerçant la wala Hizbut Tarqiyyah wala Touba Ca Kanam tabax ku ñëw itam ingénieur la wut topp liggéey bi def béton armé bi ba mu mat sëkk. kon daal ci li nga xam ne gisul ko ñun. suñu xel na ci bu baax a baax rafet na dëgër na te aw na aw na yoon. li dañ ñaan yàlla kay. Euh, yàlla na yegg ci loxoom. mu yàgg fi lool lool. te yàlla na rapport ci loxoom. ba ma koy def ñu fekk ñun ñëpp. ndax li sag la. ndaxte université. Mm-hmm. fi mel Al Azhar. Mm-hmm. Égypte. Mm-hmm. da nga koy coow. ñu bari fa la ñu jàngee. boo demee Istanbul. boo demee par exemple Bagdad. wala nga dem Irak. wala Iran. yooyu université yu mag yi fa nekk yoo xam ni. sag la tey sëñ Abdou sëñ Mouta sëñ Moutaxa def ko sëñ Tuubaa fii sag la bu rëy la. waaye li ci am solo dëgg nag sëñ Abdou wax na ko léegi ñu fi génn du nekk ay jaayil. ay nekk daana xam daana man daana man daan seen bopp indi également bokk ci dëkk bi dëkk bi d'abord defar ndax dëkk bi Sëñ Tuubaa moo ko moom ne dëkk bi gis ngeen li fi xam ci ci ay liggéey assainissement bi affaire u ndox mi affaire yooyu yëpp ay ingénieurs ñoo koy defar kon université bi bu neexee yàlla ña koy def ëllëgee Sëñ Tuubaa fii la ñu génne te dana jàpp ni lool nag bu neex yàlla yàlla fekk lépp tatal ko ci bëgg sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf <laughs> jërëjëf tubaarkàlla noo koy santaat bu baax a baax a baax macha allah sëñ Axma kàddu yi de rafet na lool am na solo amin ci ñaan yi yàlla ñu ko fekk ñun ñëpp te ak wéy nag di ànd ak sëriñ bi rek ni ko imaam waxee ndax nee na liggéey bi kët jeexagut ndax li am lu ñu tuddee fonctionnement fonctionnement mooy bu gone ya ña ngay jàng waaye am na lu leen war ci biir daara ja kon noo ngi sant yàlla bi mu ñu xéewalee ndigal loo xam ne du jeex mukk ndigal lu dul jeex la ndax bâtiment yi mën naa pare waaye nag du tee nag dañuy wéyal nag ndax fii ak ndongo yaa nga fay jàng rek am lu ñu fay war loo xam ne ñu nit ci ñun la war a bàyyi ko. maanaam <laughs> ma yokk ci li bi wax léegi mu am solo mooy affaire entretien bi waaw. ndax bu dee bi ñëpp demee. Hmm. entretien bi. Hmm. ndox mi. Hmm. courant bi la war a fay. gaz bi. kooku ay nit ki defar. kooku nit ñi la. waa tubaa ñu war a góorgóorlu. ni ni Touba kanam Touba ci kanam taxawee ak ñeneen so ay ay ay ay daayira. taxawul taxawul université bii. ndax liggéey bu rëy la. gis université Dakar wala ak Gaston Berger yi. ñu bëri bu ñu jug bu ñu bu ñu yëngal daal xale la ñuy mer mooy affaire entretien. amuñu amuñu égout. suñu ndox ndox. kon loolu ñoo li nga wax léegi yàlla yàlla suturaal dëkk bi nit ñi jóg nag jàpp suñu liggéey ci liggéey boobu ndax comme moom kenn laaju nu dara hmm. suñu doom ñu ngi liggéey fay nu dara kon nan hmm. nan góorgu ci entretien bi yàlla hmm. la nga tëjal bi kon bu baax a baax imaam Habib <laughs> may yàlla na ko yàlla may fan wu gudd wér liggéey bi yàlla na barkeel te yàkkale ko ba daj àdduna ci barkeb sëñ Tuubaa ndax liggéey bi rafet na sell na xam-xam yu baax a fii génn ci wàllu mbok wàllu diine wàllu adduna benn fànn koo xam ne gii da nga xëy ba jant sa turoo dégg ñu traité ci lu am njëriñ ci ci ci ci ci ay sama di amut mhm. kon moom université la université la bu yaatoo yaatu la kon liggéey la bu sell yàlla na ko yàlla may fan bu gudd ak wér mhm. yàkkali nag liggéey bi ba daj àdduna nu mu ko bëggee rek yàlla na ko ne yàlla defee yàlla ko yàlla may ay télévision ak ay rajo lépp lu mu bëgg ndax moom yoon wii nga xam ne moom la moom la samp waa ay télévision ak ay rajo yëpp bu ko amee ci yoon wi rek lay jaar te yoon wi rek nag moo am solo kon jërëjëf noo koy sant di sant ñëpp di doole ñaanu Cheikh Mountakha yàlla yàggal ko fi yàlla nañu yàlla yàlla nañu ko fi yàlla bàyyil yàlla nañu yàlla sarax yàlla nañu yàlla dimbale bàyyil na fi Cheikh Mountakha mii nga xam ni ak nekkam fii sunu njëriñ la yàlla nañu ci yàlla dimbale barkeb sëñ Tuubaa amiin barkeb sëñ Tuubaa jërëjëf euh, imam ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant di gërëm sëñ Ahma tamit wax dëgg yàlla ci contribution bu am solo bi kon mbokk yi imam Abibou Diop la woon moom Serigne Touba Cheikh Salih Mbacke kaddu yi nga xam ne doon nañ ko taataan ci moom jëm ci daara ji nga xam ne a Cheikh Mountakha mi ngi koy defal maamam borom Touba ci dëkkam bu tedd bi di Touba dégg ngeen na ma ko waxee jëlee ko nag ca daaree cosaan ja e, ca Mbacke Kajoor e, bi sëriñ bu mag bi waxee la mu waxoon kaddu bi siiw yooyee nga xam ne yamatul woon rek ci jàngale rek waaye dolli na ci yitte ja dolli ci muy muy himma jooju mu doon junj rek. nga xam ne ca la euh, formé kàngam yi nga xam ne ñoom ñoo ko wër kenn ku nekk peek xam-xam ci wet gi nga xam ne euh, ca nga nekkoon tudd na ci ay tur yu bari bàyyi itam ay tur yu bari waaye université boobee nag moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di barkeeloo barkeeloowaatee ci euh, dëkkam bu tedd bii di Touba sunu xel dem ci Serigne Touba Cheikh Salih Mbacké borom barab bii la mu waxoon ci ba mu waxee na jox leen ma xale yi ndaw ñi ma def ci ñoom. li sëriñ bi defoon ca mag ña ba yàgg mu ñëwaat ne ma jéem a def ci moom te na mu ko waxee woon noonee la ko defee ku ne gis nag gone yi nga xam ne ñoo bàyyi ko ci daara sëriñ Saliou Mbacké yi waaye day mel ne kon ak Cheikh Mountakha Mbacké moom mi ngi jéema rek université bu mag boobee sëriñ bi tabaxal defoon ca Mbacké Kajoor mu indil ko ku tedd ki fii ci biir Touba ngir am yaakaar ne ñii ñu war a former ñoom it danañ génn doon borom xam-xam yu mag yooyee nga xam ne ëllëg ñoo war a defar jamono ñoo war a tabax jamono ndax imaam wax na ko léegi xam-xam dafa am solo ci ak dund waaye euh, al ilm wal xayaat xam-xam dañ koy boole ak dund ñu xam fi jamono toll xam-xam yi nga xam ne moom lañ ci war a jëfandikoo ñu lëkkale leen ngir nag mën a lijjanti jafe-jafe yi jamono jooju loolu am solo la imaam dëgg-dëgg dégg nañ wax ji am na solo trop jërëjëf jëf mbokk yi ñoo leen jox rendez-vous kon incha allah ci yeneen i programme euh, ci ouverture université bi incha allah. ngeen di ko ànd ak nag programme seen télévision As-Samadiyya TV asalaamualeykum wa rahmatullah